délégué fii Thiès euh, ñu woowoon tey jii nga xam ni mooy alt euh, talaata ñu woowoon président pap Diop ñu ngi ko woowoon keroog jeudi ne ko dañ laa soxla woon pour waxtaan ak jàmm ñëw sa bureau pour toog yow pour waxtaan ak yow ci gaaru Thiès ndax duñ ko bokk te mënuñu koo séddoo mënuñu suba demee Touba si Maguette suñu blague du ma jot mais nan baay ba talaata ba talaata ñu day si bureau fédération ñu toog waxtaan démb ñu am économie woo naa Thiès gépp woo na région de gépp ba woo waa Kaolack fu ne mu woo foo ñëw gis ngeen salle bi tey ni mu nit te biñ koy woo dañ ko woo pour jàpp ne ay responsable lan te ko bokk mënuñu a waxtaan si jàmm ñu gis ne président Pape Diop moom mandaam jeex na depuis le ñu bind ko tontu wuñu wax ak moom mu ne dootuma waxate yéen ndax que woo naa laaj leen caution defoo leen ko ñu gis fan yi si ginnaaw bi mu lekkee sunu xaalis si wargay nde yi am nga yow yoo xam ñu ngi leen di woowee allo Dakar fee sa euh, Stade Lat ñu gis ni 400 oto ñu ngi fay dagg chaque semaine ku nekk 15000 francs ñu gis ni fii si sel 200 ñu ngi fay dagg ku nekk 15000 francs chaque semaine ñu gis ni EDK 150 oto ñu ngi fay ku nekk 15000 francs par semaine ñu gis ni fële nga xam moo di rond-point Ngent 100 200 oto ñu ngi fay ku nekk 15000 francs euh, euh, par par semaine loolu bi ko calculé mu nekk 950 oto yoo xam ne ñu ngi dagg biir loolu kenn ku nekk nekk weer bu nekk 60000 francs bi ñu calculé loolu 60000 francs yooyu mu nekk euh, at mi bu ñu calculé oto yëpp mu nekk cinquante sept millions bu ñu jëlee cinquante sept millions moom mi fa toog fi toll nii quarante mois quarante mois yi mu nekk deux milliards deux cent quatre vingt tey jii loolu waral jotaay bi tey. ñu ne ko bi ma dikkee maa njëkk a jël kàddu ma ne ko président ñun ñoo la convoqué tey pour nga sàkk ñu ab daje ñaari question lañ laaj ba ñett bi jiitu mooy sunu xaalis bi nga xam ne war nga leen wax ñu ngi la koy jox te miimoo ko si kanam payeur mais hmm. perception municipale da koo demandé mu ne ko effectivement ban nga ko di nga am rencontre mu ne ko PR ne ko kon bu la cour des comptes woowee na nga préparé ses éléments de réponse maa ngi toog te korog moom moo ma woo téléphone ne damaa bëgg nga fekk réunion bi ngir luñ fa tënk comme yeneen opposants yi ëllëg loolu ba a tekkeeku te tey ji ngeen li mu wax mu ne ñoom du ñu opposant ndax laa ne caution joxewuñ ko préfet woote waat le préfet département korog man la woo téléphone ne ma opposant yi la ba ngeen fekkaat ko ku ñu defan transport maa fa nekk Abdoulaye Ndiaye Samba Thiam ak Alassane Ndoye moom ñu mu àndal dugguñu si biir saal bi parce que amuñu élément de réponse ñu taxaw devant transport kon tey mu taxaw daal ñu doon ay opposant lan moo tax moom koo convoqué ñu kon loolu ñu di question. tey ñoo ko sàkku bi ñu ko posé question yi ñetti question lañ ko posé benn bi xam ni war ñu koy jox mu war ko jiw suñu kees te beneen bi ñu ne ko sa mandat jeex na dañ lay laaj lan ngay xaar pour élection ñetti question bi beneen bi ñu ne ko lan ngay xaar pour woote pour jébbal autorité yi comme ni Abdou Diakhaté defoon comme ni defoon parce que kenn ko ne ba sa jeex nga dem ci préfet département ne ko mun ma atte sama bopp taman candidat laa damaa bëgg nga nga organiser yi woote ñu samp un commission boo xam ni benn membre bu nekk préfecture ku tudd Ndiaye Mohamed Ndiaye moo ko jiite woon ñu jël benn enseignant préfet moo ko jël ñu jël ay enseignant yóbbee si bureau de vote yi jaay ay carte ku ku jënd carte garage bindu nekk ci fichier électoral bi moom Pape Diop bi fi yaa ko présidé woon moom mu ni règlement intérieur garage bi amul fu mu waxee benn texte ci day joxe caution kon caution juróomi dërëm moom du ko joxe tey mu dem ba demee nii situation bi mu dugg mënu cee génn xam na ne am na ay faay parce que euh, war gaynde yi mu ngi leen doon daggal chaque une semaine bu ne quinze mille francs biñ ko calculer nekk na deux millions huit cent deux milliards huit cent quatre-vingt-quinze mille si ñetti at yi durant ñetti at yi quinze chaque semaine mu daggal oto yi quinze mille ñaata oto deux cent et quelque oto loolu nag léegi bi ñu ko calculé mu nekk xaalis bu bari garage bi bi mu koy jël si Mamadou Gueye dafa defoon ak moom passation de service Mamadou Gueye jox ko xaalis bi nga xam ne garage bi kenn du ko organiser ci sa xaalis carte de membre yi ñuy jaay ci la ñuy dem élection ku gañe ñu jël recette boobu jox la ko moom nag biñ muy jël garage bi jox nañ ko recette boobu ab bis bu fi nekkoon mu jaay ko am faay li mu waxoon nit ñi defu ko mu ne woon ñetti at laay toog jubbante garage bi mu toog ñetti at garage bi gën a yàqu ñeenti angle yi nekk Thiès fu mu teg fa ay nitam ñu koy daggal rusi quinze mille par bis loolu nag lañ taxaw ni ñun désormais jeex autorités yi ne ci dëkk bi yëpp bind nañ yóbbu leen toog ak préfet ci taabalam préfet ni seen association bi fii mi ngi tege ci yoon duma ci dug fii xoo xeexu leen la wax parce que ñun dañoo nekk ay ndaw dëkk ci dëkk bi jàpp ne suñu amee problème préfet mooy yor kaaraangeeg dëkk bi ñu sol suñu dàll dem ci moom ñaan toog ak moom bi ñu toog moom ni ko ñun kat dañoo nekk kuréel goo xam ne dañoo nekk garage ñu dugal ñu fa ñuy fay droit a fay yëpp mais ñu gis ne Thiès histoire yu Thiès 99 ay bakkan wadd na fi ay deret tuuru fi ay nit gaañu fi ay nit seen àdduna yàqu fi te ñoom ñi ñoo ko defoon moom mii wax li tey moo fi séddale woon gaaraas bi ñaari yoon comprendre nga ñu toog ak wax ko préfet ni seen mbir mii du ma ci dugg ndax te coow amul man Samba Diam ni ko kon préfet su ma déggee say wax danga nga ne doo àtte xuloo xeex ngay àtte préfet ni ah en tout waxuma loolu waaye ku xeex ma dugal ci sama loxo ñun nag balaa looloo am sol nañ suñ daal dem ci préfet bépp autorité bu nekk ci dëkk bi. woo ñi nga xamante ni mooy waa bureau bi ñu toog ba ñëwee li ñuy wax euh, la ñuy dañoo bëgg ñu organise ay élection jaar carte organiser ay élection man leen dèjà loolu defe naa ni euh, passé nañ ko ndax it bi ñuy def euh, assemblée générale bi ma wootee première assemblée générale laa woote mbooloo mi xam ni toog ñu décidé fa ñoom ñu boycotté ñëw ñun dinañ ko yàq di ngeen ko yéen presse bépp dem ne dañuy dañuy dëkk bi na tàkk dëkk bi na tàkk da ngeen ko deuxième assemblée générale ma wataat ko bañ dikkee mbooloo mi moom seen yëf décidé ñu jaay carte dañuy jaay carte mbooloo mee ko d'accord ñu waxtaan ci ñu ci affaire caution yi caution bi biñu nee caution un million man bokk naa ci ñi ko lànk mais majorité moo fa doxal majorité ba taxaw nag ñoom moom seen yëf ñu lii ngay demee par force bi sama mandat jeexee ma bind autorités yi ne sama mandat jeex na damay def assemblée générale woo ñi nga xamante ni parce que mille mille euh, mille sept cent trois personnes jël ay carte biñ ñëwee toog ma leeral leen ñoom opposants yi euh, balaat ñëw na fa ak ñoom Cheikh Mbaye ak ñooñu buñ ñëwee ñoom lañ def bilan bi contesté wuñu bilan bi lañ la ñuy wax mooy euh, caution bi lañ contesté caution bi nag man yaakaar ne assemblée nationale bii bii xam président de la République bu amee luy jàll fa la ko jàllale mu jàllalee ñi dañoo nànk ñi nangu ñi moom seen yëf ñi la ñu waxoon ci assemblée nationale ba deuxième bi moo la ñu waxaat fii ku amul un million doo dem caution. te loolu mbooloo bi moo ko tënk mbooloo bi ñoo ko tënk ci kanam UG yéen a ngi toog yéen journaliste yi kanam UG bi UG bi laa jël ci kanam Alassane Ndoye kanam Mbaxane Gomis Alassane Ndoye moo président réunion bi mooy syndicat bi dégg nga ñoom nag seen problème mooy toujours problème seen syndicat yi syndicat yi dañu bëgg base ci Sénégal te yàlla def na nag Sénégal bu Sénégal dee daj Alassane Ndoye moo yor base regroupement yi ci loo xam la ko bëgg ak ku bañ la ko yàlla teg ba mu président réunion bi man sax moom mere na ma ci parce que bañ demee ñu ni caution bi un million ma lam sama poste génne sama un million. maanaam ku bëgg nekk candidat. candidat ndax ñoom ñi di candidat am ñoo xam ne seen fukki dërëm dugg ci garas bi léegi bu njëkkee rek candidat dof rek la yàq ay ay carte carte yi du lañ am ñoo xam ne vingt et un personnes am ñoo xam ne treize am ñoo xam ne loolu nag soo forcé ne nu jël seen xaalis ku bëgg a dem candidat yéen candidat jël seen xaalis joxe ko dem man nag ma jël ma un million ci dañu Assane Sall joxe ko te Assane Ndoye boole ñoo ko ñu wax euh, kii Assane li ñu toog fii ñu dimanche tey jii ba dimanche jël si dimanche kay fii la mu fekk ma toog toute la journée gis ñu beneen ku ko ku andi candidature euh, yi gis ñu ko laaj gis ñu ko joxe dara ma woo leen fi réunion Assane ñëw ne damay installé man ko may ma tuuti ma waxtaan ak ñoom ma xam ne lu leen tey ñëw ma war a ñëw fii jël UC. bàyyiwaat ba mu ñëwee dañuy dafa am fu ñuy dem yoonam ñu toog tasaafare yi ñoo ba dem kon li leen andi mooy bëgg garas bi ay commission ay nangam ci loolu seen borom nanguñu ko te nanguñu ko suba. garas bi yitte naa ko ñetti at chaque année moo tax assemblée seen borom ñoom ñi opposé wu seen ñaar fukk dugg ci garas bi man nag maa bëgg jàmm ak salaam ni pour ñu bu ngeen tawee moo toll nii toog waxtaan di nga sëfoor si dañ mën dama leen yàpp mais d'accord naa dama leen yàpp léegi nag bi may jaay carte. fii laa toog commandant corps bi mu may dégg damay woo ñoom ñëpp ñu ñëw toog bañ ñëwee ñu ne commission ma leen samp naa commission mais bu fekkee carte yi da leen commission bi da leen bëggul yéen ñeent ñëpp ñu toog ñu jaay carte ci kanam commandant corps bi ku ñu wax Samb Thiam taxaw ba mu waxee taxaw ñu ne dañuy waxtaan seen biir ma ne yéen ñeent ñëpp ñëw leen yàlla def na dugguñu ab laat jënd ñeneen jënd am ñoom ñu lànk jënd mën na ma forcer kenn parce que li may mais 4 448 personnes bu ñu nee élection bay passé mais 2665 ñoo dem élection kon 1783 yaa nañu que leen forcé dañ ñëw parce que ñi mu intéressé ñoo moom seen yëf 1703 yii ñoo jënd fii carte te yi mën naa yi jënd nii mën naa ko jox ku la neex ci àdduna mu vérifié ko lenn carte bu te bon rek dañu aligné lépp wala élection yi kii xam moo ko leen supervisé muy Alassane Ndoye moo joxoon date joxe nit ñooñu ñëwuñu ma jox sama question xaw ma ñoon jox nañ ma joxuñu moo tax ma ne du ma ca wax naan ay élection dina am ak du am surtout maag Alassane Ndoye ma jox sama question loolu leer leer na waaye man ci moom ma moo tax ma indi si woo si lii waaye nag ñi moom seen yëf ñu ngi toog ci garas bi dégg nga ñoom nag chaque jour ñu dem ci rajo yi ak ci réseaux sociaux di wax ci wax dara taxu ci UG bi UG bi mu jël mi ngi nii kayit man chaque jour région ba nem Youssou laa jël Youssou bind ko mbooloo ma fa nekk bind na ko dafa nekk bind na ko ñoom nag problème syndicat la ñu bëgg a concurrencer di amu man moom dañoo installé maa ko ñaanal batma pour ma xool ñoom ba xam lan mooy seen xalaat.